ziar leen bu baax ah, di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour fii ci Leewtoo TV ngir indi leen li gën a fas si bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu borom kër gi rek di ko ñaanal jàmm ju baree bari bari yaakaar naa ne su amee jàmm ñu am jàmm ndax ku la jiite ku ne jàmmam mooy sa jàmm ci noonu nag damay nuyu ñu ma féggoo rek daal di ñëw jukkil leen li gën a fas mbay nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk internet yi di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal weeru kooru jàmm ak salaam Assane Waalo nuyu naa la. nee Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV man bëgg te jàkkaarloog ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. ma ngi noonu nag jeudi 15 avril 2021 journal suñu lamb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk Modou Lo et Ama Baldé ont renouvelé leur licence fee ca CNG. kii ko laay mu ngi ci yoon régulariser combat boobu Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la demee Modou Lo ak Ama Baldé yeesalaat yeesalaat nañ bu baax a baax seen ay lissance ngir mën a dugg bu baax a baax ci saison bi gannaaw ba Luc Nicolaï taxawalee seen combat ñoom ña nga toog di déglu Luc Nicolaï pour mu jox leen dat ñu mën a bëre wante Luc Nicolaï ma nga ca yoonu régulariser li nga xamante ne bii mooy boobule combat Assane dëgg la mbay Babacar Ama Baldé et Modou Lo ont renouvelé leur licence loolu journal suñu lamb titré nee na depuis mardi passé Ama Baldé dem na CNG renouveler licence am ba mu fa jógee Modou Lo également démb ci mercredi dem na fa renouveler licence am donc combat boobu ñoom ñaar ñëpp renouveler nañ waaye li ci bees moom mooy Luc Nicolaï moom itam mu ngi ci yoonu dem régulariser euh, combat royal boobu foofu sa CNG journal suñu laam nee na du yàgg dara euh, Luc Nicolaï dem fa régulariser ko nee na promoteur bi également comme ginnaaw bi premier face à face bi yàqoo mi ngi waajaat jàpp beneen date pour defaat premier face à face boobu entre ñaari lutteurs yooyu. incha allah malgré les critiques ci ki nga xamante ne nii mooy la dëgër numéro 2 le puncheur de Walo ak tooñ ñu ngi koy tooñ sànni xeer ñu koy sànni xeer. suñu làmb nee na il reste incontournable dans l'arène Mbaye Babacar suñu làmb moom moo bind loolu tey nee na Lac de Guiers 2 euh, malgré xeer yi nga xamante ni bii ñu ngi ko koy sànni yëpp ak tooñ yi nga xamante ni bii ñu ngi koy yëkkati yëpp di ko teg ci kawam mbër la ma nga xamante ni bii kenn mënul tudd mbëri Sénégal te doo ko ci boole kenn mënul dem bàyyi ko Assane dëgg la Mbaye Babacar malgré les critiques et les colibés colibé mooy plaisanterie sànni xeer maanaam euh, journal suñu laa làmb ne ne Lac 2 reste incontournable dans l'arène nee na mbër moo xam ne la mbër moo xam ne ni kenn mënul dem bàyyi ko ci arène bi ndax ki ñi ëpp ci ay adversaire ci la bokk nee na Lac mën na dajeek ak Gris Bordeaux mën na daje ak Tapha Tine mën na dajeek ak Boy Niang 2 Reug Reug na ñi ñëpp ay potentiel adversaire u Lac 2 ren ñu fàttali ne ci carrière carrière am Lac 2 jot na def 19 combats am ci 14 victoires 2 nuls 2 défaites ak benn sans verdict ca noonu nag ci Khalifa Niang lañ jëm moom mi di président écurie Taïchinga lam xam ne ci journal bi nee na structure bii di Link Télécom kii di Sidi jaan jiite ko mooy dox combat Modou Lo ak Eumeu Sène Baye. mi ngi noonu noonu na ko xalifa ñaa xamle wante avant loolu nee na euh, tournoi bi nga xamante ne bii moom mooy tournoi VIP. Euh, te ñu yëkkate woon ko fii doon ko rumba ndaat nee na kenn mosu leen a seet si ne dañu koy organiser wante ba léegi ñëw na ci journal bi wax ñu ne Link Télécom moom moo tëggoon Modou Lo Eumeu Sène dëgg la Mbaye Babacar xam nga Sidi Diagne moom mooy euh, patron Excaf démb journal suñu làmb daf ko dalal ci interview bi mu ne euh, ex-CAF musul euh, jéem a tëgg ab benn tournoi euh, VIP. ginnaaw wax jooju nag tey xalifa Niang di président Tay Shinga euh, tontu na ko moom nee ne dëgg la ex Excaf mosul jéem di euh, waxaale ay benn tournoi waaye euh, ex structure bi di Link Télécom te Sidi Diagne moomu moom ko moom moo doon négoci négocier tournoi boobu tournoi boobu nag mu ngi waroon dox ci diggante Eumeu Sène Bombardier Balla Gaye de ak Modou Lo Khalifa Niang teg na ci également ne instant boobu ci tournoi boobu di Diagne mu ngi proposé woon Eumeu Sène ci tournoi bi 450 millions mu ngi noonu nag répétition des revanches entre VIP la ca journal bi xam ne nag loolu noonu day freiné li nga xamante ni mooy yéeg bi xale yi war a yéeg mbay Babacar ndax bu fekkee VIP ñooy bëri seen biir rek xale yi duñu mën a yéeg ci loo boobu noonu Bécaye mag lam ci xam ne mooy làmb ji warul pënku tënku ci nga xamante ne mooy juróomi mbër mbay waaw suñu làmb moom moo moo moom xëy bind loolu tey nee na eh, juróomi mbër yi nekk ci kaw rek waruñoo nekk di joxante ay revanche ñoom ñoom ñoom kese ñuy bëree ci seen biir suñu papa Bécaye mbay mel na ne dañ ko cee jox kàddu mu ne làmb ji war nañ koo yaatal ndax xale yi nekk ci suuf mën a fekki mag ñi nekk ci kaw asa dëgg la Mbaye Babacar journal suñu làmb dafa xëy def jàngat boobu ba pare jox Bécaye mbay kàddu jàngat bi moom mooy li mu def mooy répétition des revanches entre VIP un frein pour la euh, recomposition de la l'arène noonu la journal suñu làmb ti tuddee papier boobu nee ne euh, le fait que VIP di daje seen biir est-ce que du du du euh, du tax Euh, ñi nekk ci suuf euh, duñ mën a fël loolu nag ba mu ci joxee euh, kàddu Bécaye Mbaye Bécaye Mbaye li wax nee ne mm, ay VIP rek ñoom juróomi VIP yi rek mënuñu nekk di daje seen biir nee na loolu day tar tardeel làmb ji te VIP VIP yooyu war nañu tentre la perse espoir yi nekk ci suuf Bécaye nee na moom mi ngi rêvé combat yu neex euh, war a dox ci diggante euh, Balla Gaye ak Reug Reug wala Bombardier Reug Reug Balla gay Boy Niang nee nii lii lépp ay affiches yu neex la yoo xam ne nii bu VIP yi nangoo tendre la perche euh, espoir yi leen ko am. te ñoom ñi ñuy tuddee ay VIP tey Assane dañ leen a mayoon sens ba ñu àgg fii ñu àgg. exactement Yékini ay def na ko bi mu euh, mayee chance euh, Balla Gaye 2 ak euh, Lac de Guiers 2 ñi mm-hmm. nekk tey tamit ci bopp bi war nañ ko def tey souvent nag VIP yi seen combat yi du neex trop combat Lac de Guiers ak Eumeu Sène bi passé <laughs> na loolu layem layem la abondance de combat problème de date à Dakar promoteur yaa ngi dem ca région ya ngir mën a tëgg seen i combat mbay Gaston Mbengue moo yëkkati yooyu la kàddu nee na promoteur yi dañuy am jafe-jafe am date fii ci Dakar ngir mën fee organiser ba tax na loolu moo waral promoteur yu bëri dañuy gàddaay Assane wutali ci euh, régions yi maanaam dëkk-dëkkaan yi nekk ci biir réew mi ngir mën a amal foofu seeni combat dëgg la Mbaye Babacar abondance de date abondance de combat problème de date à Dakar des promoteurs décident de migrer dans les régions euh, loolu la journal suñu làmb wax nee ne combat yi dañu bëri tellement ci dëkk bi euh, dadi également euh, promoteurs yi di ko xëccoo ci biir dakaar loolu tax promoteurs yu bëri bëgg dem ci région yi tëgg seen gala looloo tax Habib Ferrat mi nga xam ne nii moom moo tëgg Sokosim ak Serigne Ndiaye de bëgg amal combat boobu Thiès ginnaaw moom tamit Assane Ndiaye bëgg na fa euh, tëgg si Diourbel euh, de même que Gaston combat bi mu nga xam ne ni tëgg na ko mu war a dox ci Forja ak Pakala ci région yi également la ko bëgg tëggee. ma ngi noonu nag tournoi bi nga xam te ne Yeddaale Gningue moo ko taxawal première journée am Mbaye mu taxawal ci ay xale ay jeunes espoir waaw nga daal di ñëwal tuuti kan kan ci war a bëri ci euh, mu nekk tournoi ba nga xamante ni bii yi daal di ñing moom moo ko tëgg borom ñing production promoteur boobu nga xam ne macha allah lu mu tëgg mu neex ndax ay événement ñëpp dañu koy dañu koy yàkkamti. tournoi bi di tournoi des espoirs nag kii di Kaw Gourdin war na faa bëri Kaw Gourdin. war na faa bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy albarka kayre wante yankaaw junior tamit war naa jàkkaarloo ak kii nga xamante ne bii moom mooy caatu Daouda Fall nekk ay combat yi nga xam ne Assane incha allah amateur yu bëri ñu ngi koy bàyyi xel di ko xaar ak yi daal ñi nga borom ñi nga production dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee li daal li ñu ngi moom moo tëgg tournoi boobu tournoi boobu mu war a dox ci diggante Kaw Gourdin Albarka Kayre Yankaw Junior ak Thiatou Daouda Fall léegi tournoi bi ne tirage bi première journée may def na ko samedi bi passé looloo tax euh, première journée bi Yankaw wala euh, Yankaw moo ci war a daje euh, Thiatou Daouda Fall Kaw Gourdin war ci dajeek Albarka Kayle loolu nag première journée bi rek la te première journée boobu également dina am yeneen affiche yoo xam ne ni bokkul ci tournoi bi Ronaldinho dina fa daje ak Koña mm, Mbaye Tine Junior dina fa daje ak Dabdal combat yooyu bokkul ci tournoi bi nga xam ne ni moo war a daje ci moo war a euh, dox ci diggante Kaw Gourdin Albarka Kayle Yankaw Junior Thiatou Daouda Fall. ñu ciy ànd ak ñi ngi production yëddaale ñi ngi. incha allah noonu Alioune Alioune Ndour mii di vice président amal daal lam xam ne ci journal ginnaaw yàqteef yi amoon ca stade arène nationale bi passé nee na nag su jëree ñu tëj stade bi nañ ko tëj waaye nañ ko tëj bi nga xam te ne mooy lutte avec frappe ndax ay du yem ci bopp borom buñ ci boole lutte sans frappe bi may baax mi ngi noonu Aline Ndour moom mooy vice président amalda moom mooy yëkkati yooyu la kàddu Ndeye Mbacke gannaaw ba ñëpp ñaawloo li amoon arène nationale nga xamante ni bii macha allah euh, doy na waar trop kenn rafetlu wu ko mi ngi noonu di buddi sees di ko sànni ba ministre bi yëkkati woon ay kàddu ne euh, arène bi mën nañu koo tëj wante Alioune Ndour li mu wax tey mooy nee na arène bi bu ñu koy tëj tamit nañ ko tëjal ñi nga xamante ni bii ñooy bëre bëre dóor wante ñiy bëre bëre simple moom wax dëgg yàlla ba saison bi ubbee ak léegi li ñu gis ci seen ay comportement mooy comportement yu rafet la. dëgg la Mbaye Babacar Aliou ginnaaw waxu Matar Ba la dégg moo tax mu bëgg ko tontu démb Matar Ba dafa génn ne euh, waa làmb su moytuwul euh, ñu tëj euh, arène nationale bu dee violence bi dafa nari continuer loolu nag la moo tax Aliou tey xëy tontu ko Alioune Ndour moom mooy vice président amal amalda amalda moom mooy amicale des amateurs de lutte et toute discipline assimilée Doudou Diagne ko jiite ko am du kii alindur Ndour nag li mu xamle nee na bu dee dañuy tëj arène nationale nañ ko tëjal waa lutte avec frappe ndax waa lutte euh, simple moom kenn xamu leen ci violence dinañ fa tëgg calmement kenn euh, ba tournoi yi gala yi jeex ci jàmm kenn du fa def violence donc bu ñuy tëj arène bi daal nañ ko tëjal waa lutte avec frappe te bàyyi ñoom wàllu avec lutte euh, simple ñu continuer seeni manifestation waaye Assane ndey Mbacke sànq dafa wax lu am solo dafa ne ay du yem ci bopp borom te ñax gu ñax gu wow mën naa lakkaale bu tooy arène bi buñ koy tëj yaakaar naa buñ ko tëjee moom euh, ñëpp lañ koy tëjal bi ngi noonu kon daal nañu fexe daal euh, la fa amoon bañ fa amati moo gën mais Babacar pour pour yar waa lutte avec frappe mhm. mën na leen ko tëjal bàyyil waa lutte simple ñuy ñuy continuer pour montrer leen que ne ñii ñu ngi def sans violence kon mm. ñoom it war nañ ko mën a def. dëgg la Assane. ba léegi lutte simple la ñuy desandi entre vingt 27 mars ba 10 avril kii di franc ramassé na li nga xam te ne mooy 4 millions 200 mille mbay mu mel ni saison bi neex na lool. mu mel ni moo ubbi jags ca gaal gi daal di tëj ca arène nationale ak Fallou Ndiaye. ci diggante boobu nga xamante ne bii mooy diggante le 27 mars ba le 10 avril. Franc mën nañu wax ne ay poosam diis na ku nekk xam na ne mu ngi waajal combat digganteem ak ak Tyson de loolu dina ko permettre mu mën a duggaat bu baax a baax a baax a baax ci combat bi mën a génn ci ay poosam compal sëriñ yi ñu mën koo jox ci butéel yu baax yi yaakaar naa loolu dina ci am solo gannaaw ba mu gañee un million deux cent nag ci diggante boobu nga xamante ne bii mën naa ne ci weer rek lay toll euh, Franc mën na ne mi ngi ci lancé bu baax Assane dëgg la Mbaye Babacar entre le 27 mars et le 10 avril Franc amasse 4 millions 200 mille nee na 4 millions 200 mille yooyu mi ngi ko commencé le 27 mars foofu ca gaal gi boobu la daane euh, Mor and Asta euh, Mor Asta Dem ñi nga xam ko ñu gën ko xam ci tas yaakaar ginnaaw bi mu ko daanee boobu am na 1 million 300 mille le lendemain le 28 mars toujours ci terrain gaal gi. Obali éliminé ko demi final malgré élimination boobu am na fa 100000 mu jógee foofu dem la 3 avril à l'arène nationale mu daan fa euh, finale général Malika euh, gagné fa 1 million 300 mille ginnaaw loolu mu dem le dix avril toujours ci arène nationale mu daane finale Libidor euh, gagné fa 1 million 500 mille. macha allah di ko ñaanal loolu ko bu baax a baax a baax record lañ jëm lutte son duel avec Gris Bordeaux agité. Le camp de la de Guiers numéro 2, le puncher de Waalo attend d'être contacté Mbaye Babacar. Lac de Guiers Lac de moom mi nga xamante ni bi moom moo nekk écrit Waalo comme ni nga ko waxee Ndeye Mbacke ñu ngi ruumandaat kombam ak Gris Bordeaux wante li moo ñu ñëw staffam ak ñi nga xamante ne bi ñi ko wër li ñu xamle mooy ñoom kenn seet seegu leen ñoom daal ñu ngi toog di xaar ku leen seet si ngir ñu mën a waxaale boobu boobule combat. dégg la Mbaye Babacar ginnaaw bi amee ndam ci Eumeu Sène ci avertissement ginnaaw ñu bëre 40 minutes euh, prochain adversaire ñëpp dañu yaakaar ne Gris Bordeaux moo fi sës pour dajeek Lac de Guiers 2 loolu amateur yi gis loolu tax nag euh, waa euh, camp Lac de Guiers 2 dégg nañ loolu waaye ñoom nee ba léegi nii kenn waxu leen waxu Gris Bordeaux malgré ça nag ñoom ñu ngi xaar bu leen benn promoteur seet rek pare nañ pour jàkkaarloo ak Gris Bordeaux mu ngi noonu nag ci Tyson lañuy ñuy jeexandee ak xibaar yi journal bi la mu ci xam ne mooy cinq défaites la am 0 victoire en 11 ans kii di Tyson malgré moo yóbbu làmb fu mu yegg jëlee ko ci suufa suuf yóbbu ko ci ay millions dafa lanc ci fin carrière am Mbaye Babacar. waaw mi ngi noonu Tyson mi nga xamante ne bii moo jëlee làmb ci ay euh, trente millions yóbbu ko ba ay 100 Euh, jiite woon écrit bi nga xamante ne bii moom mooy euh, bul faale ci fukki at ak benn tegale ci tegale na ci Assane ay defar ya nga xamante ne bii kenn xaaru ko woon ci moom. dëgg la Mbaye Babacar gannaaw bi mu révolutionné làmbu changé bàkku yi changé colin gi changé jëfin bi yëpp. ak euh, doxin ci biir làmb Tyson maanaam moom moo révolutionné làmb waaye journal record li wax nee na malgré ça nag euh, fin saison neexul dara ah. ndax daf ci am 5 défaites 0 victoire en 11 ans de 2004 à 2015 nee na ndax tafaageel la mujj daane le 30 mai 2004 ginnaaw boobu nag mu tegale défaite yi ndax Yékini daane na ko le 1er janvier 2006 Bombardier daan ko le 7 janvier 2007 ñu suspendre ko 3 euh, ans mu revenir contre Yékini le 4 avril 2010 ni daane ko Euh, Balla Gaye daane ko 31 juillet 2011 mu mujjee ci Gris Bordeaux le 3 mai 2015. ma nga noonu nag bam ci loolu ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax koo kooku di Tyson ah, di ko jaajafal bu baax li mu def ci làmb yaakaar naa ne kenn dootu ko naa natable di ko ñaanal jàmm ju bare bare di leen ñaanal aussi loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi mbaay looy tàggatoo bi jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV rawatina ñi ñuy topp ci revue de la l'arène maa ngi jaajëfal bu baax waa njaarim sama dëkk maa ngi leen di ñaanal jàm ak salaam di leen dig daje incha suba ak jàmm waalo Ndeye euh, Mbacke di la remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier waa Linguère di leen jox euh, rendez-vous euh, demain incha allah mais Babacar. waaw jaaxle woo ci kolo Ndeye Mbacke gi. dégguma. jaaxle woo ci kolo Ndeye Mbacke gi. waaw jaaxle naa ci trop ndax kii dafa ñoo bëgg a booleeg àdduna. bu ko neexee dangal sol ay mbubb ya nga xamante ne bii fii lay yem loxo yi di feeñ. tey nag gis nga ko lim sol. muuru na ba ne ba kenn mënu koo xàmmee di nuroo ki jógee jëkk bu sell ba màkkatal mu karam wante nag mi ngi noonu. ñoom diina ak jamono la ñuy dox. diine ak jamono waaw Yacine Fall ko moom tey Assane yaay yaay ruube revue bi jërëjëf mu ngi noonu loolu moo nekkoon li gën a fës maa ngi nuyu sama caméraman Mansour Fall bu baax a baax Bamba Yacine kontaan naa ci yow trop moomoo maane bég naa ci yow Kébé amal jàmm ju bëree bari di jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.